jant bi ñu tiim rek nga xam ne moo ñuy jox lu bari ci wàllu wér-gi-yaram ci ay vitamine di ñu jox énergie bi yaram soxla àdduna bépp di ci dund li mi rëy rëy ak li muy am am doole am na yeneen biddiw yu yàlla bind yu ko mën a remplacer yoo xam ne bu jeexoon tey sunu borom indi biddiw yooyu ñu ne ñu remplacer ko ndax am na ay biddiw yu bari yu ko ëpp te loolu lépp yàlla bind muy asamaan seeg suuf si di ci ne ci ay kawtéef doomu aadama rek tax mu bind ko te doomu aadama tamit jaam yàlla rek la sant santu leen la leen amul leen loo xam daf leen ko sant lu yàlla Euh, li sëriñ bi wax nag ci ne bi àdduna bu mu ko bu mu ko yitteel mooy dafa xalaat li nga xam ne moom la yàlla def ci kaw suuf si ngir nit ndax bu ñu seetee jant bi li muy togg ci ndox nga xam ne ko tax ndox moom doo ci tiit seconde bu nekk dana dana togg 16 millions tëriool tonnes ci ndox la jant bi togg ci minute bu nekk seconde bu nekk ak moroom ma te benn tëriool mooy juróom-ñeenti junniy milliards yi kon nit ñi mënuñoo jeexal ndox mi ci kaw suuf si ci wàllu gàncax tamit sunu borom wax ne def naa fi gàncax gu doy sëkk goo xam ne du jeex te lépp mel na ndox laa koy màndale wa fil ardi qita'un mutajaawiratun wa jannatu min ahnaabin wa sharhin wa naqilin shinwaanin wa xayri shinwaanin tusqa bi maa'in waahid wa nufaddilu ba'daha 'alaa ba'din fil ukl inna fi dhalika laayatin li qawmin ya'qiluun bind na suuf si def ko ay dëkkuwaay ay xaaj lii doomu aadama yi dëkke ko lii mu def ko suuf nit ñi man cee bay di ci bay ay mbay yu wuute te mel na ndox koy màndal te loolu lépp tamit ak conséquence bi tax yàlla bind ko mooy nit jaamu ko kon ku ne ci kaw suuf jaamoo yàlla loolu war na laa tiital te yàlla li muy wax lépp mi ngi koy def li mu wax ne defal na ko nit lépp def na ko ñëpp teg seen bët kon nag ku ko nanguwul a moom doo amu lay ndax amu wenn lay wax ne mën ngaa ci kanam sunu borom ne ko lii tax jaamuwu la ndax te am na ay nax yu am yoo xam ne mooy yu bare bare dañ koy siiwal di ko wax ñu jàpp ne mën naa wuutu jaam yàlla fekk mënu ko wuutu nit li muy defal yàlla ci ay cëram la koy def ak cim xelam ak ci xam-xam bi mu jàng waaye du leneen lay tax a muccal nit ëllëg mooy jàmm sunu borom waaye du leneen ndax suuf si nga taxaw ak jant bi ñu tiim yépp bi ko sunu borom di def ngir ñu jàmm koo tax te yàlla tamit ku mataragal la ndax yi mu wax yépp dara dañu ko ci saa bu ñu xëyee gis jant bi di fenk ci so ci penku bi waaye di so ci sow bi am ñeenti fenkukaay ak ñeenti sowukaay te loolu ba mu ko bindee ba tey muy ay milliards dara musu cee sensé wala mu dindi ko kon nag lam lay wax ëllëg ne ku ma jaamuwul danaa am fu ma la dugal wala ku ma tooñ loola lu mat a gëm la dañu bañ rek di tawri ci xel nit ñi di leen wax yu yomb yoo xam ne mooy waral jaam yàlla yu ñu oyofal ko wala jikko yu baax yi nga xam ne moom lislaam bi jàngal ñu di ko oyofal ndax yàlla yi mu def yëpp mi ngi koy def mooy ñeenti fenkukaay yooyu ak ñeenti sowukaay yooyu te dara musu cee darape yoonu mi jaar te loolu lépp bi ko yàlla bind nit rek a tax du la neen nit doomu aadama te doomu aadama moomu bind tamit leen rek la ko sant mooy dee ma jullil di ma wooral dama demal màkk di natt asaka di yërëm sa moromi jaam yi nga bokkal ci kaw suuf te di leen dimbali ci sa am-am ci li nga yor te yàlla dénk la ko te nga dëggu ci say wax waaye dëggu ci say jëf ndax yooyu yëpp luñ ci maa doon ëllëg sunu borom dana ko natt kenn bu mu la nax ci ne ëllëg dañ koy balaf balafee mu jàll déedéet lépp la yàlla di lijjanti sunu borom du bàyyi dara ndax àdduna bi bàyyiwul dara li fi bind lépp da koo teg ci ay xam-xam teg ko ci ay régal yoo xam ne dara mënu koo sensé dara mënu koo dindi ginnaaw moom li ma waxoon ne mi ngi koy def ci wërsëg bi ma waxoon ne maa leen bind di leen wërsëgal doomu aadama ju nekk fa sa wërsëg di jóge ak fami fami fami tab bi maa ko xam te danaa la ko defal muy wa maa min daabbatin fil ardi mooy import bi ak export bi yëpp yàlla da koy def fi muy jële wërsëg bi ci loxo doomu aadama yi mu koy jaarle ba mu yegg si ceew yow na nga ko jëfandikoo ak fa nga lépp sunu borom nee na na ko te nee xam na ko war nga koom ndax ni mu la bind rek leen loo ci mën a ñàkk amul muy loxo muy bët muy tànk muy biir ba juróom-ñaari cër mat lenn loo xam ne bu ko doomu aadama ñàkkoon suñ ko ko bëggoon defal xaalis bu bari lay laaj dafa am benn waay bu tawat ñu yóbbu ko hôpital bi mu demee mënta noyyi ñu defal ko li ñuy tuddee muy noyyi ci al islam ay yi nga moom la ñuy liggéey muy air oxygène boobu ñuy defar muy gaz mu ne nañ ko dindi ndax dafa seer nee mu jooy ñu ne ko loo mu ne yàlla ba ma bindee ba léegi maa ngi noyyi ci oxygène boo xam ne yëguma ko mooy muy ngelaw loo xam ne maanaam fooraay bi kenn xamu mu toll te lii ngeen def ci seen gaz yi muy ci machines yi ma di ko noyyi di ca fay ay millions mu xalaat loolu moo tax mu ne nañ ko dindi mu faatu ci noonu moo ko gënal muy faatu ci oxygène boo xam ne tubaab yi ko defar loolu tolluwaayam la waaye li ñu bëgg a jàngale foofu moo di ne nit ki day xalaat li ko yàlla defal ni mu riisee nga xam ne dara mën koo wootee loxo képp bu ñu la ko doon sanseel lu bari ngay fay bët bu ñu la ko doon sanseel lu bari ngay fay tànk noonu lu ci nekk ci cër yi noonu te lu lépp bi ko yàlla bindalee mooy jaamu ko amul leneen kon lu mën a wax lu du jaam yàlla mi ngi la dugal ci ay nax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne doomu aadama bu amee benn dërëm boo xam ne léwut mu dugg ci alalam moo gën a garaaw fanweeri njaalo yu nit ki njaalo ci diine kon nit ki war na xëy dem liggéey wala mu wut lu mu am waaye mu teg ko ci ni ko lislaam diglee waaye ne bu mu dox diggante ma jaamu yàlla maanaam di wut adduna ba jaamu yàlla loolu tardement la bu mag te defe naa ne jamono bu ñu seetee lu baree bari loolu moo ñuy dal waaw maanaam li ñu adduna jaral bu ko jaamu yàlla jarloon sunu borom xëccal ñu adduna mu ñëw ñun te loolu tamit wax yonent bi la nee na bu ngeen wàkkilu woon comme ni picc yi wàkkilu jublu ci ñàkk wut dara waaye nga xam ne yàlla mooy wërsëgal moo yor lépp ba nga natt ko ci sharia li lislaam di jàngale ci am am nga teg ko ci am am yooyu bu mu la teree jaamu yàlla ndax lépp lu la teree jaamu yàlla ak gaaf la te jamono ji ñu toll yu baree bari wax ma ne ni ñu wutee ala sax waaye yi ñu dund ci àdduna teñ def ko fi muy ay matériel dox na suñu diggante jaamu yàlla yu baree baree bari ba tax ni ñu waroon di tuddee suñu borom wala di ko jaamoo noonu des na te loolu lépp ay gaaf la yu dox suñu diggante sunu borom te loolu day alak jaam bi ëllëg kon nag sunu borom jox na nit lu mat ci àdduna ba nga xam ne munta amow lay ci ëllëg te mooy dama waxoon sànq ci yi mu ko bindal mu di ko dunde muy ay dund gu foor goo xam ne euh, sëñ Mbay Jaxate daana ko misaal ci ay wayam lu bari di wax ne nit bu xiifoon wala mu mar ci la am aw lay waaye na tey jii nga reggee amoo wenn lay nit ñëpp kenn koo xam ne xiiftee naa la jaam yàlla amut kon soo xëyee na nga waslaax ba am loo mën a dunde waaye ne bu mu dox sa diggante ak jaamu yàlla noonu ngay waslu àq tamit na nga ko teg ci ni ko diine jàngalee ndax lépp loo tegu ci ni diine jàngalee ak nu ñu la ko mën a tëwalil ba wax la ko ca ay nax la rek daf lay sonal ëllëg te yàlla moom du rëccal dara lépp ëllëg dana ko xisaab dana ko régler loolu rek la fi la sëñ bi jubloo jàngale ci loolu waaye jubluwutoo wax ne bu kenn xëy ñàkk wuti loo am na nga wuti loo am waaye nga teg ko ci diine waaye bu noteree jaamu yàlla moom ba ca mooy biir bàmmeel bi na la yitteel mooy nit yàlla koy indi ci àdduna defal ko fi benn jaaruwaay ngir mu mën a taxawal ëllëg wabtaqi fi ma ataka law daar al axira wala tansa nasibaka min addunia wa ahsin kama ahsana allahu ilayk wala tabxi fasadan fi l ard inna allaha la yuhibu almufsidin mooy yàlla dafa laa bind ëllëg ci àdduna ngir nga war a sàkku ëllëg yowmal xiyaam na nga koy sàkkoon mooy lim la jox ci àdduna mooy nga wut loo am mën a liggéey mën a ba mën a am loo dund ngir mën a jaamu yàlla ndax ni wa ahsin kama ahsana allahu mooy ni la bind jox la cër yu mat muy juróom-ñaar jox la xel jox lay bët ngay xool jox lam xel moo xamee ne ak yuur goo xamee ne mat na fukki milliar yi secteur yoo xam ne benn bu nekk doomu aadama su àggoon ci mën koo jëfandikoo mu man koo jariñ lu bari ndax jamono ji ñu toll euh, fi nga xam ne fi la ñaw àdduna toll ci xel ci doomu ci wàllu yuuram buñ ko seetee juróom benn fépp weesuñ ko ci yuuru doomu te des na fukki milliards ñaar yu des kon doomu aadama loolu ci yaafusam la te loolu lépp rek ngir defal ko ak jàpp na ba mën koo jaamu ngir mën a lijjanti àdduna ndax ci biir yi ngay lijjanti àdduna ci ngay mën a taxawal euh, ëllëg yomal xiyaam moo tax wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk mooy ni la yàlla jëlee ay teraanga jox la ko bind la bind bu mat euh, jox la li gën a riis mooy ngay nelaw di yeewu di xalaat di xam te loolu bu fekkoon dañ koy fay facture kenn mënu koo fay te lim la sant lu yomb la mooy defal ma nangam mooy jaamu rek ki la defal lii lépp na ne la jaamu ma euh, war nga caa def sa kem talaakate ngir jaamu ko ndax nit sax doo defalu te noonu te daanaka da nga koy xaw a jaamu ndax lii ñu yàlla defal lépp amul kenn koo xam ne mënaan nañu ko du kenn koo xam ne mën na la li ñu yàlla def te li mu ñu digal lu la te ku ko deful tamit da nga ko defal keneen moo xam loola nit la moo xam du nit da nga topp ci am di daw guddeeg bëccëg te doo mën a jot ngërëmam te boo faatoo ñàkk nga kon nag lépp lu lay teye jaamu yàlla na nga ko sori muy loo xam ne màdd la bu ñu bind muy ay matières yu ñu jëfandikoo ci àdduna bu la teye jaamu yàlla na nga ko sori bu dee nit ku lay teye jaamu yàlla na ko sori ak xalaat bu la mën a xalaatal ak lu mu la mën di wax ndax jamono ñu toll ay yàq-yàqu yu bëri am na yoo xam ne mi ngi dund ci biir société bi te yooyu yëpp dafay gàllankoor nit ñi ci diggante ak seen borom ci diggante seen morom doomu aadama yi te loolu lépp lu alxuraan di jàngale la te loolu tamit nit ki da ci war a xel nit warut rek bàyyi euh, ci lekk naan rek nga xam ne du xalaat lu ci nekk war na koo xalaat ba xam lu mu doon mu xool ci niñ ko mën a jariñoo ndax loolu moo tax xam-xam si fii aadama bi mu wàcc fii ci kaw suuf si benn moyen bu mën a jëfandikoo lépp day def tajriba mooy isien dara xam ne lii nangam la ñu tàmbalee ci bay tàmbalee ci nekk ba lépp taxaw sunu borom digal ko mu jàngal malaayka yi xam-xam boobu mooy dox ba tey ba ni lislaam yegsee ba ni ci tubaab yi récupéré loolu di ko doxal ci àdduna bu ku ne man ca teg sa bët lii tubaab yi def rek ci ndimbalu suñu borom kenn ku ne yaa ngi cey jariñ ci sa mbiri diine yaa ngi cey jariñ ci sa mbiri te tubaab rek ko def waaye rawat na suñu borom mi xelal tubaab yooyu ban mën a def loola kon yooye tubaab yi def ak yooyu yëpp ak yu ko jiitu wota tax nit ki yaaxuus wota tax nit ki ñàkk xalaat daf ko war a dolli am xel war koo dolli xam war koo dolli lii mu xam ne lu yàlla sàkk la waaye da ko jaara ci diw sàngam mu jaar ci diw sàngam mu nekk ab jumtukaay loolu man ko dolli am xel man ko dolli xalaat ngir mu xam fu muy teg tànkam waaye bu mu ko teree jaamu yàlla ndax lépp lu lay teree jaamu yàlla rek bu dee nit la bu dee matière la gaaf la baaxut kon li yàlla santaane mooy bi mu ñuy bind ngir ñu jaamu ko waaye jaamu googu tamit da koo teg mooy bind nañu ay moyens ndax bu bindoon noonu rek ne jaamu leen ma dañu ko jaamu farfos waaye ci mbaaxam nag li suñ tubaa jàngale ci euh, tasawuru sixaar wane na sunu borom bi mu ne ñu jaamu leen ñu daf ñoo indil lu ko mën a jaamu mooy jàngal ñu xam bu ñuy xamal sunu sunu borom jàngal na ñu ñu koy jaamoo muy li ñuy tudde euh, fiq bi àtte lislaam nu ñu jullee nu ñu wooree yu mel noonu waaye jàngal ñu tamit saan mooy yooyee nañ koy defee te yàlla tax nga xam ne loo ciy def nit du tax yooyee ci baaxu suñu borom la ndax bu ko neexoon bañ koo def ndax am na sañ-sañ bi te am na ci lépp ndax bi mu la bindee la la moom jur gi nga moom sax wala ki nga jur te moomoo ko sax dañ ciy tëral say luwaa léegi yàlla na bu tëralee ay luwaam lu ëpp a jàggi teg la ndax luwaa yi suñu borom kenn du ko jalgate ku ko jalgate tamit ak ñàkk xam ci nga ko teg ndax am na yeneen ñu bind ci wet gi yoo xam ne ñi ma ko jalgati kon nit ki saa bu xëyee war na farlu ci jaamu yàlla war na farlu tamit ci addunaam ba nga xam ne du doon ab yaafus ba mën a taxawal dara ba mën a jaamu sunu borom bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi bi amarana bittibaai sunnati fi kulli al awqat wa sharafa almuttabiina lissunnati tashrifa wa axbarana ala lisaani nabihi an almuttabiina lisunnatihi inda dihabi ddiini wa fasaadi ummatihi yudaafu lahum alasabu tadifa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 wajtinaa bi nawaahihi i'tiqaadan wa qawlan wa fi'lan wa zaahiran wa baatinan wa'lamuu anna ad-dunyaa laysa bidaari qaraarin lakum fasta'iduu lil-mawti faqad adhallakum wa laqad wa qad qaala sallallaahu alayhi wa sallam aksiruu min min zikri min zikri haadimi aksiruu min zikri haadimi llazzaati hattaa yanqati'a rukuunukum ilayhaa alaa wa innakum fi yawmin fi yawmi amalin laa hisaaba fiihi alaa wa innakum tuushakuuna fi yowmi xisaabin laa amala fii wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah falaa taxurrannakum alxayaatu dunya wala yaxurrannakum billahi xaru innama tuuaduuna laat wa ma antum bi mucjisin alhamdulillahi alwaahidi alqahaar rabbu samaawaati wal ardi wa ma baynahu wal aziizu alghafaar wassalaatu wassalaamu ala almabuusi lilxalqi bittabshiiri wal imdaad sayidina muhammadin bi aalihi wa saxbihi ulil aydi wal absaar amma baad fa yaa ibaadallah tadakkaru qawla nabi sallallahu alayhi wa sallam kun fi dunya ka annaka garibun aw aabiri sabiil أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا بميزان الشريعة جميع أعمالكم فما وافق فيها قسطان الشريعة فدوموا عليه وما خالفه وما خالفه فتوبوا منه واجتنبوه واعلموا أن ما في الآخرة خير وأبقى وأن ما في هذه الدنيا قليل يفنى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور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 allahumma inna naskuruka ala kulli nicmatin ala kulli nicmatin ancamta biha alayna bima laa yaclamuhu gayruk wa salli wa sallim ala sayidina muhammadin sayidi alawalina wal axirin salaatan turdika wa tarda biha anna amin yaxfiru llahu lana wa lakum